ci boppam source a naka noone Vox Populi di ñu xamal ni Sénégal léegi kon jàppale ni dëkk la buy produire pétrole moo tax bisub talaate gu démb gi daal bis la bu kenn dul fàtte bu ñu sukkandikoo ci directeur général bu Woodside njiital Petrosen moom ci wàllu boppam ne am na yaakaar léegi dëgg ci Sénégal Sénégal dëgg ci ère bu bees l'observateur di dikkaat tey ci ay bis maanaam date yi nga xamante ne ci lañu jaar ba suñu réew bokk tey ci dëkk yi nga xamante ne ñooy produire pétrole liggéey bi yépp daanaka booy xool ci diirub ñaar fukki at la doxe yéenekaay groupe Futur Média bi yamu ca jàngat na tamit li ciy ngënal waaye tamit lan moo ci ay risque bu fekkante ne njiiti réew mu fi nekk ak ñi mu àndal yegg nañu ci la ñu diggee woon mooy càmbaraat contrat pétrole yi li am ba am mooy baril bu njëkk bi nga xamante ne kon tukkee na ci Sangomar ni ki démb jur na yaakaar dëgg ci réew mi bu ñu sukkandekoo ci yéenekaay bi di bis bi la jour suñu naataango yi dikkaat tamit ci kàddu président Bassirou Diomaye Faye muy dalal xel génération élection yi war a ñëw phase bu njëkk bi lu toll ci téeméeri junniy baril la ñuy produire bis bu yàlla sàkk Woodside mi nga xamante ne moo koy liggéey di xamal ni champ sangomar yooyee am na lu toll ci ñeent jàpp juróom ak lu teg ci ay milliards de dollars ay milliards di taw ci kaw Sénégal Walf Quotidien moo dikkee ci eurobond bi nga xamante ne Sénégal jot na ca waaye tamit décaissement bi nga xamante ne FMI mu ngi koy waaj a def ngir réew mi fii ak weerub sulet bi ñu dëgmal Sénégal di jot ay milliards Sénégal milliards enquête yéene kay moo suli tey koppar gu tàkku lu toll ci téeméer ak ñaar fukki milliards yi nga xamante ne kon réer na may ci doxalinu banque régionale des marchés lépp ñu jaarale ko ci normalisation jënd ay créances waaye tamit tension ci wàllu trésorerie yéene kaay bi dikkat na yi tamit ci naka la état bu Sénégal def ba mujj contrôler lu ëpp ci institution bancaire boobu ci source a ñu ngi ñuy xamal liggéey bi nga xamante ne commission ad hoc bi ñu samp ngir mu saytu occupation domaine public maritime bi ci ndakaaru wax ni kon yëf yaa ngay dox ndax jëruñ ji di musa Moussa Balla na ñu ngi koy xaar ni ki ajuma ji ca Géejawaay ak Kër Massar te dossiers yi ci seen wàllu bopp ñu ngi koy càmbar benn bu ci nekk Libération xëy di càmbar li nga xamante ne moom la ñu doxal ca pôle urbain bu jam ñaajo ak Lac Rose diggante 2017 ak 2020 yéenekaay bi di xam ne ni kon opérateur yi ci seen wàllu bopp lu leen neex la ñu doon def foofee di lubal koppar jaarale ko ci ñàkk délibération bi nga xamante ne tukkeewul ci conseil d'orientation bi ñàkkum ndox mooy li ub bopp askan wi l'exclusif dikkaat nag ci coupure yooyu nga xamante ne dañu ko nemmeeku mu nekk lu metti ci jamono ji nga xamante ne ñu ngi dund tàngoor waaye tamit ci waajal tabaski gi wàccaay tabaski soxal yéenekaay bi di la tribune mu wax ni ren ji daal méttit gi foo ko natt weesu na ko li ko waral mooy xar yu cher waaye tamit koppar gi nga xamante ne kenn seenu ko équipe bu Sénégal moom jamono ji Soudan lay seen ci kanam stade quotidien ne Soudan démb dafa fekki naataangoom bi di Soudan du Sud daal di koy toroxal ñetti bal ci dara ba tax mu rawee sunu gayndey lu toll ci ñaari poñ loolu tax na ba équipe Aliou Cissé bi moom bu leen di fekki ci seen dëkk ci weeru mars bi ñu dëgmal daanaka ci tiitaange lay doon ñuy wane seen bopp ci équipe bu Aliou Cissé bi ci ñaari jongante yi wees record yéeni kay xëy di lim seen tur bokk na ci gardien de but bi di Edouard Mendy défenseur bi di Abdoulaye sekk waaye tamit Idrissa Gana Gueye ak Pape Matar Sarr Iliman moom ci Rewmi Sport